ajja Sénégal ku doon laajte supérette bu yoboo noppalu ndax supérette si ñëw na nekk Cambérène tali Njaga Mbay gën leen ko préciser nag fi nga xamante ni fa la clando yi di tourner maa la ko wax de supérette bu bees tàq la te am tawféex lépp loo xalaat nag ña nga koy jaay ci biir poulet viande jambon poisson lépp la ñuy jaay ci biir am na tamit gelato et biscuit am crème glace am Nutella biscuit lépp ñi nga koy jaay ci boobu les supérette nee naa la ba tey ci wàllum jus yi am na maa la ko wax am na soow pur am na soow nag bépp xeetu boison boo soxla it am na fa am na ay caakiri am na eau minérale foofu daal am na lépp dafa taw féexe ndax supérette alfirdaws la ñu ko tuddee ci wàllum légume tamit am na fa waaw waaw am na ca biir lépp luy xeetu légume rek am na fa ñoom pomme de terre rek et eh, waaye lépp am na fa laa la wax ci biir ba tey moom li nga xamante ni moom moo di supret al firdawsi am na it li nga xamante ni moom moo di transfert d'argent maanaam multi service waaw waaw Wave Orange Money Kepa Western Ria gramme lépp am na ci boobu la supret bu la neexee itam nga toog sa kër xoolal numéro yooyu di daw ci suuf nga def sa commande lu la neex kaay yi la ko ba fa nga nekk foo mënti nekk nee naa la bi supret bu bees tàq kenn du ko am di jooy doo ko gis di ko wëri ka fa dugg jaaxaluma de ka fa duggagul a ma yem gars yi ñëw leen waaye ñëw leen xool li nga xamante ni moom moo di alfir si Suprette alfir daw si nag nee naa la ma nga sedd guyi guyi gis nga yow foofu boo fa duggee da ngay mel ni ku ne aljanay Firdawsi dañu ko climatiser ñaq moom doo ko fa indi doy boo demoon ca àll ba it ba ñàq tooy xib da ngay dugg rek sedd guyi féex ma fa ne amul feneen <laughs> cey bile place maa ko naaw Alfirdawsi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taalaahu wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki lislaam bi mbokki réew mi ñoo leen di nuyu tey ñaan suñu borom boole nu yoolub nuyoo tey nag yàlla dafa dogal muy bis bu tedd di bis bu màgg ci lislaam ku ko waral góor gu baax gu ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Sall fële ca Saalum ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen ci ndokkeel tey ñaan luñ ci amee yal nañ ko suñu borom defal muy sunu mucc àddina ak àllaaxira bu ngeen gisee plateau bu yaañ bi ngeen xam ni njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Sall moo ñoo woote waaye nag bala ñoo def dara ñu jox jëmm ju tedd yi ñu dendal su ko defee mu nuyoo présenté wu su ko defee incha allah ñu wéyal waxtaan wi.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 wa ala alihi wa ashaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki jullit yi xarit yeeg soppe yeeg wóllëre yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkel bu baax ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla mu yóbbu ci ak jàmm ñu fekkee ko ci tal ak wér ak xéewal sutura te lépp luñ fa def yan yàlla nangu ko incha allah ñuy bëgg ñëw waxtaan ak yéen tuuti ci lu aju ci bis bi kii waxtaan ak yéen nag seen mbokk la Serigne Mohamed Sall porte parole nga xam ne mooy porte parole kër gi pour xoo mbokk yi ak xarit ak soppe ak wóolari jullit yëpp ci bis boobu nga xam ne bis bu màgg la ci lislaam waaye bis bi bis bu am sololo la itam ci Sénégal bon incha allah sëñ bi ñu delloo la microphone bi boo amee question yooyu ñu bëgg a laaj rek ñu waxal la ko incha allah. waa kay jërëjëf euh, Serigne Mohamed Sall di porte parole bi nga xam ne mooy famille Cheikh Ahmadou Bamba Sall fële ci Saloum. ñoom nag dañuy amal gàmmu annuel édition 2024 lieu ba moo nekk Bamba Bamba Modou fële ca saalum waaw samedi le 5 samedi le 10 février di amee fële ca département bu kafrin euh, di famille euh, Ahmadou Bamba Sall waaye nag ku xam ku dégg tur woowu xam ni tur la woo xam ni Sénégal fii ñëpp xam nañu ko ku ko kiiw dégg nga ko muy tur woo xam ne siiw na ci senegal gépp waaye siiw na ci diine ndax ku wax Ahmadou Bamba Sall rek foo mën a nekk nit ñi daan ko ràññee waaye nag bëggoon nañu bala ñoo ñëw ci bis bi ñu mën a xam kan mooy si Ahmadou Bamba Sall ak kooku lan mooy liggéeyam bisimilah. alhamdulilah rabbil alamin nga ma laaj boo xam ne danaa sawar ci tontu ko si Ahmad Bamba Sall dafa bokk ca mag ña bokk ci boroom xam-xam yi bokk ci nitu yàlla yu mag ya bokkoon ca jàngalekat ya bokkoon ca yarkat ya bokkoon ci ñi nga xam ne référence lañu xoon yu siiw yu xamoon ci seen jamono tabarakallah sunu xaalixiin ci liñ jot am ci taarix mu ngi mi ngi gane àdduna mil 741 waaw ah, ci la gane àdduna dund quatre-vingt-dix-neuf ans mu ngi génn àdduna mille huit cent quarante bon mag la waaye nit la koo xam ne liggéeyam ci xam-xam ci senegal liggéey la boo xam ne bu bu rëy la bu siiw la ndax mook Serigne Pire xaare amal Fall jamono wante nañu am nañu question yu bari yu bàyyeekoo ci xaare amal Fall ñëw ci Cheikh Ahmad Bamba la ndax Cheikh Omar Fouti bi muy ñëw foofu ci Cheikh Cheikh Ahmad Bamba Sall eh, xaare amal Fall moo ko fa yebal mu ñëw fa am lu mu doon jëflante xaari amal faal mu yebal ko ci Cheikh ah, Ahmad Bamba Sall mu ñëw fa jëflanteeg moom ci wàllu xam-xam bon ko rëy la ci xam-xam koo xam ne carrière am ci xam-xam la ko la ko passé wax nañ ne bokkoon na ci ñi ñang ñi njëkk a laal darsu tafsirul Qur'an ci réew moomu di firi alquran ci wolof waaw ci Saalum moo jàngal Maam Mor Anta Sali di waajuru Serigne Touba te yaakaar naa doy na tegtal kese ci xam-xam ba doy na tegtal ca xam-xam ba ñi moo jàngal Maam Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali jàngal borom jaamal Maam Mor Anta Sali jàngal sëñ Mbàkke Buso te xam-xamu borom jaamal kenn werantewu ko xam-xamu sëñ Mbàkke Buso kenn werantewu ko bon Mor Bamba Sall mi jàngal Maam Mor Anta Sali buñ ne borom xam-xam la yaakaar naa ne xel mën na ko nangu kenn dootu ko werante won ah, bu ko defee borom xam-xam la woon boo xam ne jàngalekat la woon dundam bi yëpp ci yar ak jàngale la ko def moo tax nag ñi mu jàngal ci Saalum bari lool waxatu ma wax ci Saalum waaye ñi mu jàngal ci Sénégal damay wax ne yar may la ci amoon da tax ma am ci may mooy jamonoom alquran daara yaa ngi fi woon ñi daan jànge alquran waaye mag ñi baaxoon nañ ku jàng alquran ci jamono boobu wala ngaa ñibbi ñu ne la demal ci daara Ahmadu Bamba Sall donte la ab weer nga fay xam walla nga am fa at wala nga am fa ay weer doog a ñibbi ndax taataan barkeb daara ji ndax siw na ne daara ji ko fa bàyyeekoo da ngay barke te loolu nag neex naa gëm li tax mu neex a gëm mooy ña fa jànge ñaa ba fii ñiy wax ak yow këri barke la boo demee Kaolack ñaseen nga këri barke la seen maam Amar Ngàjje Ñas di waajuru Alaaji Abdoulaye Ñas maam mu Bamba Sall moo ko jàngal waaw boo demee ca silla silla ya sëñ Bandumbe Silla nga xam ne mooy waajur sëñ Bamba Silla maam mu Bamba Sall moo ko jàngal sëñ Bamba Silla Mamour Bamba Sall lañ ko tuddee setam bu baax bu siiw muy Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahin ca Touba setam sëñ Bamba Silla la moom laay waxtaan mu ne ma ñun sunu maam sëñ Bamba Silla seen Mamour Bamba Sall lañ ko tuddee moo jàngal sëñ Mandumbe Silla ñam jàngal ca Saalum nag kaar bari nañ lool ku ñuy wax njànko saako mooy ñi meññi saako caaxo yi ku ñuy wax ambu daraame mooy ñi benn daraame daraame yi ku ñuy wax matar daraame tabaarakallah ah, mam masamba yongu boo gisee mbiru Mor Bamba Sall yéeme bi mu génn jamono dafa bàttale ne su ma génnee jamono diw moo may jullee diw na ma taxawe mooy Masamba Yongu ma Masamba Yongu bi Mor Bamba Sall di génne àdduna keroog bis bi mu génnee àdduna ñi di ko waajal di ko toppatoo balaa ñu ko war a yóbbu ca barab ba la mam mam Masamba Yongu yegg si te fa mu dëkk ak fi Mor Bamba Sall dëkk dëkk diggante bu sori la foog naa ne lum néew néew ba matut téeméeri kilomètre dana mat juróom-ñaar fukki kilomètre te jamono booba war rek wala dox déedéet téléphone amut war rekk wala dox waaye kam bàttale woon na moo koy war a taxaw keroog bi mu génnee adduna balaa ñu ko denc kooko yegsi na teew nga yëg bon moom amoon na cër te xamoon na itam kam doon bàttale kan la waaw ndax kam doon bàttale xëy na yég na ne mu Bamba Sall heure bii ci la war a génn àdduna tamam moo ko war a taxawe mu Bamba Sall itam xamoon na ne kii ko war a taxawee moom dana ko fi fekk moo koy mujj xamoon na itam ne dana mën a fekkee si robam du ci am ngànt loolu nag cër la waaye pour wax leen rek ne Modou Bamba Sall ku yéeme la li tax mu yéeme mooy xam-xamam dafa daj kap kap Sénégal tabaarakallah sana xaalixiin ku liggéey ci yar la waaye ku liggéey ci jàngale la ku amoon may la ku amoon wilaaya la waaw daan na tarbiya ndax maam Mor Anta Sali wax nañ ne def na ci daara ja fukki at ak ñeent dafa jàng xam-xam ba yàlla def li ñuy jàng fii ci réew mi yëpp mu jàng ko jàng na naxwu jàng na fiqhu jàng na luxa jàng na usul jàng na arud jàng na balaaxa jàng na mantiq yi ñuy jàng ci réew mi yëpp matière yëpp mu jàng ko ba pare laxasaat nag tarbiya moo tax mu yàgg fa wax nañ ne fukki at ak ñeent la def ca daara ja moo tax nag moom barkeem bi nit mënu koo natt doy na ci barkeem maam Mor Anta Sali ñu ne yaa jur Serigne Touba Serigne Touba doomam Serigne boobu jàngal ko moom la ko tuddee muy Cheikh Ahmad bambasal la bon Cheikh Ahmad Bamba Sall ku am dimension la ku am dimension bu rëy rëy rëy rëy la ci xam-xam waaye ci wilaya waaw ku am cër la bu ko defee nag moom la ñu defal bis bi bis bi ñu ngi ko tàmbali mille neuf cent cinquante de ci lañ ko njëkk a defal siyaara sunu maam bu ñuy wax seet seetu sàll di sëtam moo ko njëkk a sos moo xëy ànd ak ñaari doomam jël kaamil ñëw ne day defal maam Amadou Bamba Sall kaamil fekk sama papa mu ngi tooxu si pour dekkal dëkk ba bi mu ñëwee ñu bokk fayendu jàng kaamil bi ngoon jotee mu takk sareetam di ñibbi suma papa ne ko ah man de dama bëggoon lii comme tàmbali nga ko te man maa fi ne boo koy defati boo koy waajati nga yëgal ma ko ndax ma man koo waaj waaw loolu mooy sababu tàmbali siyaara bi ca déwén sa mam seet seetu bi muy ñëw dafa jàpp gàtt teg ci salet bi ànd ak ñaari doomam jël kaamilam ñëw bi mu ñëwee tabaarakallaahu sama papa boobu mu ngi amee daara ju mag waaw taalibe alquran yu bare bare bare ak taalibe yu mag yu jàng alquran yoo xam ne boobu jamono boobu mën nañ juróom fukki taalibe yoo xam ne ñu ngi jàng alquran am na ci taalibe yoo xam ne booba taalibe taalibe waat lañ yor ndax am na si taalibe yoo xam ne si jamono boobu ci daara ja ñoom rek lu néew néew am nañ fukki taalibe te ci daara ji lañ nekk di taalibe di jàng xam-xam am na ci taalibe yoo xam ne foofa ci daara ji lañ ajee màkka doo ko ñibbi waaw ko defee nag daara ju mag la euh, sama papa ne ko laal bëggoon naa boo ko defati nga nga waaj ko yëgal ma ko te déwén sa mu waaj ko yëgal ko sama papa jàpp gàtt indiwaale bi mu ñëwee sama papa ànd ak taalibeem ya ak waa daara ji yëpp waaw wax dëgg yàlla ñu xendu fa jàng ay kaamil defal seen Mamour Bamba Sall ñaan lii la siyaare bi tàmbalee ci 1952 1952 nag ba léegi ñu ngi koy def mosuñ ko arrêté tabaaraka laa sunu xaaliqiin euh, ren nag ñu ngi ko jàpp samedi bi ñëw nii incha allah mooy samedi le 10 février incha allah ñu fas yéene waajal ko rek ci ay kaamil waaw fas yéene waajal ko ci ay dog ñaan waaye fas yéene itam waajal ko ndax barab booba ñi koy defee barab bu fajukaay aajo la mën naa si joxe tegtel bu gàtt rek pour wane dimension Mourou Bamba Sall Cheikh Omar fuuti def fa ñëw jëflanteeg moom ci wàllu xam-xam bañ waxtaanee ba juboo Cheikh Omar Fouti te ju fa xalwa ca jumaa am jooja jamono booba Mourou Bamba sàll moom rek mu am jumaa ci tund woowu da nga dox téeméeri kilomètre doo gis jumaa waaye moom ca jamono booba amoon na jumaa mu tabax ko bànko ñi daan ñi daan fa julli jumaa Cheikh Omar Fuuti tëju na ci jumaa jooja def fa xalwa ñeent fukki fan ak benn waaw mu dogo mu dogo génn bi mu génnee laxas bi muy wàcc tukki mim defoon te mooy ajam ga wàccaayo mu ngi ko defee bàmm mu ndax xalwa ji foofu la ko duggee waaw ba génnee nag ba dem ca yoon wa dayeeg Mahamadal Xaali mu jox ko lijaasa ndax Euh, wirdu wi Cheikh Amadou Fouti amoon na ko balaa mu génn Cheikh Mawlud Fall moo ko jox wirdu tijaani yi waaye euh, mu ngi am lijaasa euh, itlaaq ci cër ci ma Mahamadul Xaali yi ci ndigal Cheikh na Tijaani yi Cheikh na Tijaani yi moo ne Mahamadul Xaali yi joxol Cheikh Amadou yu yi jox Cheikh mu ñibbisee nag ak cër yooyu mu am dafa ne comme Saalum laa waajee woon sama yoon wa de war naa fa dellu mu ñëw bi mu ñëwee waxtaan ak Mamour Bamba Sall wax ko charité bi wax ko tiraanga yi indiwaale ak xaasiya yi nga xam ne moom la ko sama Mahamadou Xaali jox ci tarixa Tijaani yi ak yi ko Cheikh na Tijaani yi wax ci tarixa bi bi mu ñëwee gaaral ko Mamour Bamba Sall Mamour Bamba Sall jël ko xoo rakkam Ali Yacine mu jël mu xoo rakkam Abdou Yacine mu jël mu ci taalibe yi fukki nit ak benn yoo xam ne Cheikh Omar Fouti yi moo may wird ci jotaayu Mamour Bamba Sall li jaasaan leen ko defee nag euh, doy na tegtal ci wane cëram xabru boobu ci mille neuf cent cinquante deux Cheikh Omar Fouti yi yónnee na fa ndaw ku ñuy wax Thierno Mamadou Ly mille neuf cent cinquante deux cinquante cinquante deux waaw mille neuf cent cinquante deux la la fa seexoon fuuti yónnee ndaw ku ñuy wax Cerno Mahamadou Ly Cerno Mahamadou Ly bi mu ñëwee dafa dajale mag ñi ci dëkk ba déedéet waaw waaye moom dafa bi mu ñëwee dafa ne seexoon fuuti yi moo ko yónnee la wax waaw mille neuf cent cinquante la waaw euh, dafa ne seexoon fuuti yi moo ko yónni ndax ñi sange xamuñu Modou Bamba Sall xam na ñi xam sange bariwul maanaam xabru bi nañ ko defar mu wër dañ ko sampaloon ay bant léem ko ci jamono booba léem booba nag am ci bant yu daanu léeg-léeg xar yeeg bëy di jaar ci diggante bant yooyu di jégg xabru bi si xamal fuuti yu yónnee Thierno Mamadou Ly moomu nekkoon nañ defaraat xabru Modou Bamba Sall bi Thierno Mamadou Ly bi mu ñëwee xoo waa dëkk ba dajale leen dafa fekk sama papa keroog dafa génn mu xoo waa dëkk ba dajale leen ne dama bëggoon ngeen dimbale ma ndax Cheikh Omar Fouti yu moomu yónni ne naa defar si xabru Mor Bamba Sall bi dama bëggoon nag ngeen dimbale ma ñi mën gori bant ñi dimbale ma gori bant ñi mën a gas nañ nañ nañ nañ ma dimbale gas moom Thierno Mamadou Lim moo ñëw ba ci xabru bi mu rëdd tànkam wër ba mu war xabru bi mu ne yéen ñi gas gas leen fii ñi gas ñu am semmiñ di dem ci àll ba di gori di gori bant di indi ñi gori bant di indi nag ñii di gas mu di leen taxaw bañ bañ samp ko ba mu wër ñi defal ko benn bunt ci jamono boobu ñu ràbbal ko bunt boo xam ne ay bant la nga xam ne bëy yeeg xar yi dootuñ fa mën a jaar ba ñu paree la sama papa yegg si waxtaan ak moom mu ne ko Cheikh Omar Fouti moom moo yónnee woon ne naa defal si xabru mu Bamba Sall bi bi mu dajalee mag ñi ci dëkk ba di waxtaan ak ñoom balaa mu tasaarook ñoom suñu wow maam ju baax ñu koy wax Alaaji Aliou Fatou Cissé ca jaamal di waaju waajuru sëñ Mourou Maxtaar Cissé moom itam bàyyee koo jaamal yegsi bi mu yegsee ba nëyoo balaa mu jàmmante gan gi la gan gi njëkk gan gi wax gan te mooy Thierno Mamadou li mi wax ne Cheikh Oumar Foutiyou moo ko yónni daf ko ne dañ doon njëkkante maag yow waaye njëkk naa la waaw ko ne dañ njëkkante maag waaye njëkk naa yéeg rek ne bon xitteeloon na Cheikh Oumar Foutiyou topp na xamul mul Bamba Sall wali wu génn àdduna ci mille huit cent quarante ba 1952 Cheikh Omar Fouti di wax ne nañ toppatoo barab ba ne. bu ne barab bu ma faj ko yaakaar naa neex naa dégg. Ah. waaw neex naa dégg foofa place nangu ñaan la place yaakaar la place faju ko ay aajo ko defee ñi ko dégg te fas yéene ñëw ci siyaare bi ñu indiwaale xol yu set. ak yaakaar ju doy incha allah fas yéene bu ñëwee ñi mën a taataan yiw ak barke ca barab ba incha allah. ah jërëjëf Mohamed Sall wax dëgg yàlla lii ku ko dégg. xam ni mag ñaa ngi noonu seen daraja seeni may seen hitte seen dëgmal seen borom waaye nag agi topp yonent bi alayhi salaatu ndax comme ni ma ko waxee woon rek si Ahmadou Bamba sàll ku dégg turam rek sa xel war a dem ci borom xam-xam bu mag ci wàlliw bu mag ci nitu yàlla gu tedd gu yiw gu barkeel ndax kunni rek yaa jàngal wayjuru si Ahmad Bamba Xaadimu Rasul di Maam Mor Anta Sali xel dal na ci loolu ñu di jeetawaay Baye Abdoulaye ñas mi nga xam ni mooy wayjuru Baye Niass waaw maam mooy mooy mooy maamu Baye Niass xam nga loolu boo ko déggee sa sa xel ak sa xol war a yëg ni kii nitu yàlla la woon waaye nitu yàlla gu barkeel la noo ngi ñaan lépp loo xamante ni dëgmal nañ ko ci bis bii yàlla na suñu borom defal na ko muy ay yiw kese ci barke bi waaye bëggoon nañu xam bis bi naka ngeen koy màggale ak bu ngeen xëyee ak guddi gi ak nu ngeen koy defee incha allah bëggoon nañ ci am ay leeral bala noo jàll ci leen alhamdulilah tabaaraka la xaaliqiin bis bi nag euh, nañ ko daan defee nga xam ne mooy baax bi mooy lu jiitu bis bi di mboolem daara yi nga xam ne ca kër ga la sosoo nekk ci biir Saalum dañuy joxe lim bu am solo ci kaamil ñi di ko jàng wala bis bi di yegg si hmm. eh, daara ya ne nga xam ne ñoo dëkk ca kër ga eh, lum néew néew ñaar fukki fan walla weer balaa siyaare bi di yegg si dañ commencé ñoom seeni kaamil hmm. bis bu ne ñu am juróomi kaamil wala ñu am fukki kaamil hmm. oh, ba bis bi yegg si bu bis bi yegg see nag bu ñu xëyee li ñuy njëkk a def mooy jàng alquran bu ñu xëyee dañuy jàng alquran ba une heure defee ñu daje siyaara jàng xatmu bi tabaaraka llaahu ahsanul xaaliqiin bu ñu jàngee xatmu bi ba pare ñu yeewi gan ñi ñi dellu ca dalya noppaliku xéewlu bu ñu xéewloo ba tàkkusaan ñi daje def waxtaan mooy li ñuy tuddee cérémonie officielle ku ñuy wax ba Yaquba Cissé di rakk ci Serigne Modou Makhtar siise bu jaamal mooy faral di def waxtaan wa at mu jot ko defee dënk nit ñi fàttali leen delloo si leen ci seen borom waxtaan ak ñoom ci naka la ñu war a mën a dundee ak nu ñu war a royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko defee nag bu cérémonie officielle bi tase yu guddi gi danay am ay woyu diina tabaarakallaahu sunu xaalixiin ki koy def mooy Madi Sall mu ngi dëkk ca Bamba Moodu ànd ak rakkam bu ñuy wax Amat Sall am na seen beneen rakk bu ñuy wax Mouhamed Seck ak ñi nga xam ne ñooy bàyyee ko fii Dakar am na sëtu Mat Bamba Sall bu ñuy wax Cheikh Sall ooy kàlla macha allah waaw tabaarakallah ak mboolem woykat yi nga xam ne dañuy dëkk Saalum tey ñëw di waaw waaw di ñëw di participer ci bis bi waaw ñu bokk dundal bis bi incha allah waaw bokk dundal bis bi bu ñu demee nag ba ci fajar si eh, xalifa bi ñëw dajeeg mbooloo mi soppe yeeg Cheikh Abdoulaye Sall eh, ñi waxtaan dénkante yàlla ak yonent bi bu ko defee ñi tasaaroo yeeweeku ba déwén ak jàmm loolu daal mooy programme bi incha allah waaw ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla yóbbu ñu sag jàmm te lépp lu ci aju yàlla jàppandal ko bisimilah. waaw ñoo ngi ciy siyaar bu baax xalifa bi di Cheikh Abdoulahi Sall di ñaan suñu borom guddal aw fanam te wéral ko yàggal ko ci kanamu jaboot gi ba li nga xamante ni moom la yéene ci liggéeyu maam bu tedd bi mu àggali ko ak jàmm. waaye tamit ku ku dégg bis bi xam ni lii bis bu tedd la ci diine waaye bis bu màgg la waaye bis la boo xam ni itam boo ko déggee xam ni budget moo koy def waa ndax bis bi moom état mu ngi ciy jàpp wala itam autorités yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ca Saalum ndax lii nga ma wax nii bis la bu màgg boo xamante ni euh, la koy taxawal yombul ndax ku tudd Cheikh Modou Bamba Sall tudd tudd këru diine yëpp waaw ku tudd Cheikh Modou Bamba Sall nga Sénégal gépp kon yaakaar naa ne bu demee ba di ko taxawalal lii ndax état ndax état mu ngi ci bàyyi xel ak it ndax état mu ngi ñëw di leen ci jàppale ci liggéey bu mag bi. tabarakallah laaj nga laaj ba am solo kaar macha allah wax dëgg yàlla man mi nga xam ne maay parte parole bi activités yi jëm ci état yëpp maa koy def. Hmm. au niveau de sous-préfecture ak préfet gouverneur ak ci ministère yi nga xam ne war nañoo war nañ faa dem bind leen euh, fépp foo xam ne war nañ faa bind rek bind nañ leen yëgal leen yëgal nañ leen ko tabaarakallaa sunu xaalixiin euh, daan nañ def at yële ci gannaaw bu jublisee danañ yónnee sap euh, service d'hygiène yi ñëw pompe dëkk ba sensibiliser nit ñi daan nañ am léeg-léeg consultation gratuite daaw nag amuñ ko bi corona xewee léegi amuñu consultation gratuite waaw amuñu ko waaye daan nañ ko am terewul nag ñañ daan bind ñi daan ñu si jàppale ñu ngi leen di bind ba tey waaw euh, waaye nag eh, li may wax mooy taxawaay bi des na taxawaayu état ci Bamba Modou des na ndax Bamba Modou patrimoine la patrimoine la ci culture islamique waaye patrimoine historique la ndax dëkk boo xam ne am na deux cents yu tegal ndax mille sept cent quatre-vingt-seize lañ ko sanc waaw mille sept cent quatre-vingt-seize lañ ko sanc dëkk boobu am na ñaari téeméeri at ak nangam te daara mosu faa jógee dëkk boobu yaakaar naa lim formé ak lim yar ci société bi ak lim contribuer ci économie ak développement réew mi buñ ko doon xayma dana yaatu lool ndax ku defar kenn ku baax ci société bi rek defar nga aw xeet te lim defar ci société bi kenn xamul nu mu wala fee nag yelloo woon na yàlla woon na état gestu ko bàyyi ko xel lool waaw ci district sanitaire te ba léegi amaguñu ko amaguñu poste de santé te yitteel nañ ko lool te effectif ba fa ne muy mbooloo ma fa dëkk yelloon nañ ko ndax dëkk bu fekkee ne la fa dëkk ci nit lu néew ne mën nañ ñetti junne nit ak nangam wax dëgg yàlla yelloo woon nañu am poste de santé waaw yàlla nañu am poste de santé te ba léegi amaguñ ko ñu ngi ci def yitte nag ñu ngi bind ñu ngi dox ñu ngi ñaan waaw wax dëgg yàlla euh, yittewoo na itam état taxaw bis bi ci lu mel ni logistique denrée alimentaire ak yu bare bare bare bari comme ni mu koy defee ci yeneen kër diine yi mais xaw na manqué ña ñu dëkkal nag danañuy participer mel ni maire waaw mais sunu sunu maire Modou Dieng Seck ku ci am taxawaay la kaar macha allah waaw ku ci am taxawaay la macha allah ku ci am taxawaay la waaw ku ci am taxawaay la macha allah eh, ku mel ni Abdoulaye Wilane eh, président conseil départemental bu Kaffrine ku ci am taxawaay la kaar muy tam tabaarakallah eh, am na ci yitte waaw bu ko defee nag eh, ak eh, responsable politique ya nekk ca secteur boobu eh, mu ne Abdoulaye Sidi Sow mu itam dina yónnee délégation at mu ne bu ko defee nag li ci solo mooy état xam ne foofa place la boo xam ne place su cosaan la bu war a bàyyi xel dugal ko ci patrimoine historique bu Sénégal ñu xam ne place la boo xam ne benn place ëpp ko ci senegal ndax place boo xam ne mën nga lim lum néew néew fukki kilifa juróom wala ñaar fukki kilifa yoo xam ne yu am barke la ci réew mi yoo xam ne fa lañ jaar wala seen maam yi fa lañ jaar place wax dëgg yàlla place bu barke la te Saalum këru diine gu ne Saalum xam rek maamam mën naa wax mën naa wax ne bàmmut bàmmut la na ci tegtal nag doy na ci tegtal ñu ne jaamal ñi ne Touba ñi ne Tiwaawoon ñi ne ñi ne Kaolack seen maam ci mul Bamba Sall la jaar dooy na tegtal ci barkeb dëkk ba waaye doy na tegtal itam na ne place boobu place bu ñu war a jox gëdd la bu ñu war a bu ñu war a nemmeeku la place bu ñu war a bàyyi xel la bu ko defee nag euh, ñuy xeebuñ la li fa état di def waaye bëgg nañ nag mu yokk loxoom waaw bëgg nañ mu yokk loxoom bëgg nañ mu dolli ñu gëstu bëgg nañ mu dolli ñu taxaw incha allah waaw loolu daal moom bëggoon naa ñu bàyyi ko bu ko defee nag waxtaan wi ma balaa ñu yegg ci tëj maag Serigne Moustapha Sall mi nga xam ne moo jiite kër Cheikh Ahmad Bamba daayira kër Cheikh Ahmad Bamba fii ci dakaar waaw ñun ñoo waroon bokk jotaay bi war ci def waxtaan waaye nag dafa mujj am empêchement waaw mu xaw a xat ci moom lool ma yeewi ko ne ko ma demal danaa la mën a wuutu waaw waaye ñëwoon na ba fii ñu waroon a toog am ñi ko soxla ñu bari kaar tabaaraka la mu mujj am empêchement ci ay kilifa yu koy xaar ma yeewi ko ne ko daal bàyyil ma toogal la fi incha allah ko defee nag moom moo toogee fii au niveau de Dakar ànd ak soxna Ndeye Khady Sall soxna Ndeye Koura ak njaboot gi ñu àndal tabarakallah ñuy seetu Mour Bamba Sall am taxawaay bu am itte taxawaay bu am solo lool ci seen bi waaye itam di ci def nag liggéey bu rëy rëy rëy ñoom itam ku mel ni docteur Sall tabarakallah alhamdulilah bi maanaam mi ne am ci itte am ci taxawaay Euh, bis baa ngi noonu ñuy waajal ko rek ne xam ne bis la bu mag ci Sénégal bis bu am solo la euh, ma di ci woon ak sama mbokk ñaseen yi sama mbokk mbàkke mbàkke yi sama xarit yi ko mel ni seen euh, seen Seexuna Mbàkke bu Alaaji Baara waaw ku mel ni Ahmad Badawi bu sëñ Mahamad Fall waaw waaw moom ci ñun la bokk ku mel ni ku mel ni sëñ Isaaxa Mbàkke waaw bu bu bu sëñ Bachirou waaw ku mel ni sëñ bu sëñ Moutalla tabaaraka la ñoo ñëpp suñu wóoloo ren macha allah waaw ñu ñuy leen di yëgal seen bisu Mamour Bamba Sall ngi noonu nag waaw yitte nañ ci seen taxawaay seen teewaay seen lépp seen ñaan incha allah waaw ku mel ni bu da baax di sama wóolare tabaarakallah sama xaalixiin waaw ku mel ni sëñ Habib Sy waaw da baax waaw ak sëñ Habib si ba sëñ Mansour tabaarakallaa sal xaalixiin ñoom itam samay wóolëre lañ waaw si mel ni euh, Moulay mu sëñ Habib sëñ Moulay si mu itam sama wóolëre la tabaarakallaa mu itam maa ngi koy woo ci bis bi ndax diina euh, essence la waaw essence la tabaarakallaa te tam ñun ñëpp nag ñoo ko bokk la fa Bamba Moodu moo ne Touba moo ne Tiwaawoon moo ne Njaxte moo nekk Canaba yitte ji ak taxawaay bi ak pas-pas bi ak yëg-yëg yi ñëpp a ko bokk Ah, kenn ku ne xam na ne maam maam moo fi dem rek hitteem ak taxawaayam ci diina ak la ma liggéey ci xam-xam ak yar rek doy na sëkk waaye nag bu ko defee comme ñoo ko bokk nag ñu bokk ko jàpp rek ah, wolof day wax mu ne diina nag wu loof la xam nga ndax xam nga loolu am déet nag wu loof la waaw waaw oh, nag wolof mu ne mu ne mu ne mu ne nag wolof ñëpp koy jafandoo yëkkati ñi dañuy jàpp ci béjjën ba ñi jàpp ci genn ba ñi jàpp fii ñi jàpp fii waaw ndax man a taxaw waaw ñëppay jàppandoo yëkkati ko waaw waaw diina wala wala fay wax wala mu ne diina nag wolof la ñëppay jàppandoo rek waaw waaye kenn mënu ko yëkkati bu ko bëggee rek du baax moo tax may tax may oo suñu suñu mbokku chef de lycée yooyu kilifa diine yooyu ah di leen woo yéen itam nag yéen waa site bi ndax euh, tabarakallah Ali SSTV Ali Ali Seck mi nga xam ne tabarakallah ñu nga xamante Touba muy ko am yar am teggin am itte lool am taxawaay bu rafet macha allah. Euh, jadaay bi mën naa wax ne moo ko waral bu ko defee nag ñu ngi koy sant ci itte jooju ak taxawaay boobu waaw tabarakallah saal xëy na daaw amoon nañu site Sunugal TV euh, moo ñu couvrir ak yeneen site waaye ren nag bëgg nañ incha allah SSTV xam naa ne daje nag. daje naag daje naag eh, appel bi nag dana ma xaw a jaaxal waaye si eh, maa ngi ndokkeel Sina Issa Sina Issa laay tabaarakala di ko xoobu itam nag xam naa ne xat na waaye na maa ngi koy yëgal sama bis bi di ko di ko wax ne ko la ma ko waxoon si bisam bi amoon naa yéene ren bokk ko moom lool nekk si wetam incha allah waaye yàlla dafa dogal sunu bis ba dajeeg seen bis bi te kilifa yi biñ ko xasee jàpp moom kenn mënu si dara moom da ngay daal di wéy rek ci seen programme waaye ñi <laughs> ngi ñaan yàlla balaa déwén buñ dajee bis ndax ma mën a bokk ak moom appel bi incha allah si naa isa ku baax waaw ku baax macha allah ku baax ku ku dal waaw ku dal waaw maa ngi koy gërëm bu baax ndax yitte jim def bi ko gee def moo woo téléphone ma ne loolu nag cër la waaw cër la bu ko defee ñu koy sant bu baax euh, bu ko defee ba amee yeneen question rek incha allah nga laajte rek ñi continuer ci programme bi su fekkee état bi yàlla waaw waaw jërëjëf yaakaar naa ni nag xaw nañoo àgg ci cappaandaw yi waaye nag euh, ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali comme ni nga ko waxee sànq rek ndax ku tudd euh, euh, Ahmadou Bamba Sall fële ca Bamba Modou tudd nga Sénégal gépp waaye tudd nga këru diine yëpp kon lii Touba seen bis la jaamal seen bis la Tiwaawan seen bis la Léona Niassène seen bis la Medina bàyyi seen bis la ndax lii day wane ni Sénégal gi yëpp la noo ngi ñaan nag yal nañ ci yàlla yóbboo jàmm mu ngi mu ngi nekk mu ngi mu ngi nekk euh, samedi bii ni bii ni jëm di tombeeg le 10 février di ñaan yal na ci suñu borom def barke waaye nag bëggoon naa itam bu fekkee am nga ay numéro téléphone yoo mën a joxe pour koo xam ni dana gën a mën a soxla information yooyu nga joxe ko te tàggatoo waale su ko defee ñu jox ñëpp dig daje incha allah le 10. incha allah bon xam naa wolof day wax mu ne li duuf ci nag wi yëpp. xaju ci cin li doon na neex lool mu xanoo gën a yaatu ma wax mut bamba sàll li indi bamba ji waaw euh, bamba ji mu ngi cosaanoo ci mut bamba sàll ndax dëkk bu ñuy wax baalo càlleen la dëkkoon baalo càlleen mu nga ca Gàmbi côté kawur kawur kawur waaw baayam Saint Maram Coy foofu la dëkkoon jàngalekat alquran la woon ku amoon barke la sama baay nettali na ma ci taalibe yi bind bu bees bu ne dañ bind kaamil waaw oh, loolu sama baay moom mu ne daara maam Saint Maram Coy mi jur ma Bamba hmm. ci taalibe yi bind bind bu bees bis bu ne buñ bindee kaamil la waaw bis bu ne ku jàng bind bu tooy sa morom jàng bind bu tooy li ko dalee ci alif laam miim zaalikal kitaab ba ci min jinti wa naas bis bu ne bis bu ne dana am ku fa bind fu mu aaya bu nekk rek dana am ku fa bind bind bu tooy <laughs> waaw nga xam ne bon bon bon mul bamb sall dafa doon barke dafa doon itam alquran ah, waaw waaye nag bi mu laxasee nag jàng dem Fuuta dem Mauritanie dem Algérie dem at yu bari ci àll bi ñibbisi bi mu ñibbisee dafa ñibbisi dekkal daaray baayam ja di jàngale alquran dëkk ba rëy ba xeggoon ci jamono booba ñetti téeméeri boroom kër waaw xumba ga nag xaw a day war lool ndax booba xumbeel céet ak làmb rek la ca yu commencé di tëgg làmb nag mën nag loolu dëpp wut ak yar muy ñaan yàlla am may ko nag fu mu mën a làqatu ba mën a eh, yar njaboot geeg taalibe yi waaw mu mu mu muy muy ñaan yàlla nag ba ñi wan ko leer koo xam ne ci biir àll bi la ne nag muy ànd ak taalibe yi nag di laxas di dàkk leer googu ñu ko wan balaa muy gis leer gi sant na dëkk bu ñuy wax gent bàpp sant na dëkk dëkk bu ñuy wax satala yooyu soriwuñ Bamba waaye muy jaamu yàlla di ñaan yàlla rek ba benn bis rek mu tëdd ñu wan ko leer gi ci guddi gi soriwul ak moom mu topp ko yor kurusam ci guddi gi di dox ci àll bi xam nga ne jamono boobu àll boobu nga xam ne gayndeeg bukkeeg lépp fa am mu yor kurusam di dox ba bi muy jegee si leer gi fajar si xar mu jullee foofu fajar toog ci ron garab di def ay lawraatam balaa lawraat yi pare nag am xaritam ñi ne taalibeem la bu doon jàng ci moom te jinne la ñi ne déedéet xaritam la boo xam ne jinne la moo ko fa fekk nayu ko waxtaan ak moom waxtaan wu yaatu ne ko xanaa de leer gi ngay topp mu ne ko waaw mu ne mu ne ko nañ dem ma wan la ko leer gi ngay topp de mu ngi ci bamb gii mu ànd moom ba ca garab gi nga xam ne leer gi doon gëstu fala ne mu wan ko nekkoon li ngay wër ci bambu gi la ne. bambu waaw. Ah, waaw ñu ne ñu ne gar bambu nag mooy garab ci làkku wén ci làkku jinne waaw ñu ne bambu mooy garab ci làkku jinne ñu ne déedéet bambu mooy garab ak wén ci làkku jinne mm-hmm. bi mu laxasee pénc ma nag mm-hmm. ànd ak taalibe yi ñi sanc ko mm-hmm. ñu tuddee dëkk ba bamba waaw bamba Bamba déedéet moom Mouhamed Modou Bamba Sall la tudd. Ahmad Bamba Sall la mooy turam. waaye dëkk ba nag dëkk ba nag ñu tuddee ko Bamba comme euh, jinne ji ko ko wan daf ko ne li ngay wër mu ngi ci Bamba gii ba mu sancee dëkk ba nag ñu tuddee dëkk ba Bamba déedéet Bamba waaw Bamba ñuy wax dëkk ba Bamba gu Moodu gu Moodu Sall ñuy wax Bamba Moodu waaw Bamba gu Moodu Sall ñuy wax Bamba Moodu moom mu dëkk ci dëkk ba ji sëriñ ñi di ko di ko wax sëriñe Bamba bi sëriñe Bamba bi ñenn ñenn ñi di wax Moodu Bamba Sall la lii moo indi Bamba gi bu ko defee nag bi sëriñ Touba ñëwee ñu tuddee ko ko nag ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba waaw sëñ Saliou Mbacke nettali na ma ci mbaaxam ga ca lawetam nga ca xam-xam ba ca yar ba ca ja ca bëgg diine ga nee ma sama baay Serigne Touba lu jiitu muy dem ci géej gi amul benn lettre bu muy adressé wala téere bu muy adressé te du Cheikh Ahmad Bamba Sall Mbacké la ci def avant muy dem géej gi ku muy bind lettre ba lam ci adressé Cheikh Ahmad Bamba Sall Mbacké la ci def téere bu ma xam di ci def adresse Cheikh Ahmad Bamba Sall Mbacké la ci def waaw mu ne gannaaw bu mu demee ci géej gi ba ñëpp ci nag lay commencé di bind xaadimu rasulullah sallallahu bu ko defee nag loolu mooy cosaanu Bamba ñu tuddee dëkk ba Bamba Moodu borom dëkk ba ñu di ko wax Moodu Bamba Sàlla ñeen ñi dox wax si Ahmad Bamba Sàlla loo ci wax rek benn la boo ne si Bamba Sàlla benn la boo ne Moodu Bamba Sàlla benn la bu ko defee nag eh, cosaan dëkk baa ngi noonu dëkk barke la dëkk daara la dëkk xam-xam la ba léegi daara jàng fa macha allah ñuy jàng xam-xam di jàng alquran bis baa ngi noonu incha allah ñu ngi woo mbokk yëpp di woo suñu mbokk yi sant Sall te bokk ci Mouride Bamba Sall ak fu ñu mën a nekk nag. waaw ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di woo. moo xam ci biir réew mi lañ moo xam ci bitim réew lañ ne ku sant Sall wala nga sëtoo ci sëtoo ci ku sant Sall rek te bokk ci Mouride Bamba Sall tabaarakallaa ñu ngi lay woo ci bis bi seen bisu maam la. di ci ciital nag sunu président Macky Sall comme moom mu jiite réew mi sant Sall ah, ñu ngi koy woo ci bisu maam Mouride Bamba Sall di woo mboolem famille bi yëpp nag incha allah fa tabaarakallaa sonal xaalis xen ban. Euh, bis baa ngi noonu samedi la 10 février la mooy samedi bi ñëw ni incha allah waaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si jàmm. waaw ku fa bëgg a ñëw incha allah man nga woote man nga woote ci sama numéro 77. 532 87 27. wala nga woote ci numéro Moustapha Sall. région bu Kaffrine la nekk. waaw région bu Kaffrine la. département bu Kaffrine département de Kaffrine arrondissement Katakel. waaw numéro Moustapha. 77 la 531 44 37. 531 44 37 moom moo jiite daayira bi fii ci Dakar. tabaarkalla wala nga woote ci 77. 440 73 41 77 440 73 41. waaw numéro yi ku ci bëgg am information boo ci boo boo ci wootee rek incha allah dana jox information mu ni xel yuntu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax euh, kullu aamin wa antum bi xeer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mohamed ñoo ngi kontaan lool te ñaan suñu borom yàlla ñu yóbbu ci bis bi ak jàmm ñëpp fekk te kenn bañ a bis bi nag bisub Sénégal la bisub umma islamique bi yëpp la ndax ku tudd Ahmadou Bamba Sall tudd nga Sénégal gépp tudd nga l'islam bi yëpp kon noo ngi leen ndokkeel bu baax di ñaanal xalifa bi Cheikh Abdoulaye Sall yal na fi yàgg lool te ànd ak wér yal ko ànd ak njaboot gi ànd ko ñoom téeméeri at yu teg yàlla mën na ko ci barke maamam yal nañ ko suñu borom defal te booy nu yool bi ñun ñëpp barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen wax ni yéen a ngi doon seetaan seen télé bu mag bii di SSTV di ñaan suñu borom moom itam lépp luñ ci yéene yal na ko suñu borom àggale ndax ay ndaw yu nangoo liggéey rek lañ te bëgg lu baax kon noo ngi wax SSTV ca kaw ca kanam di wax ni tamit na ngeen dugg ci paas bi te it ngeen abonné ndax télé bi seen la ndax euh, dafa nekk ci yoon wa nga xamante ni yàlla dafa dogal muy yoonu ndaw te ku ne xam na ni yoonu ndaw faaw ñëpp sóobandoo ko rek jàppandoo mu mën a jëm ci kanam kon noo ngi ñaan yàlla nañ ci yàlla doole defal tawfiix di wax ni in uridi ila islaama masataxtum wa ma tawfiixi illa billahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu toll loolu moo waral rekk mouvement bii di ànd dimbalante qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes des dons pour les hôpitaux daara mosquée juma école prison pouponnière et internat donc yow mi may déglu si tu vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange Money sur le numéro 78 433 44 51 le mouvement MAD dirigé par le président directeur général monsieur Ali Seck. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 ànd dimbalante baax na am na solo lool ci réew mi. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam apartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit na mu gën a gaawee tubaar fakal metre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar koy posté sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi.